Deuxièmement, c'est c'est les histoires liées à la grève de la faim. Je pense qu'aujourd'hui euh, il faut ñu mën ci xool solution pour ñi ci ëpp ñu mën leen may ay LP liberté provisoire génnuñu dëkk bi demuñu fenn ñu mën leen xool wàññi tension bi par rapport à ces détenus politiques le, le même appel que Pierre Adepa avec qui je travaille euh, aussi le même appel que ñoom Aïda Mbodj lancé que ñun ñu lancé kilifa yi lancé mais Sonko tamit daf ko war a dégg parce que ñun tamit suñu culture. Mhm. bu ñu la ñaanee. Mhm. bu la ñëpp ñaanee ay kilifa. war nga leen mën a nangul liñ la ñaan. Mhm. parce que suba tamit yow di nga bëgg ñaan leen dara ñu defal la ko. tout à mën naa leen ñaan aadama ba ñëw ko aadama ah lii de la ko ñaan nga bàyyil ma ko rek aadama ne ah ñu waxtaan ci aadama ne ma waa suba bu ma ñëwaatee si aadama laaj ko ala aadama bu mu ñëwaatee mu laaj ma dara man dinaa ko defal parce que ba ma kon ñaanee moom def loolu cër la mais il faut pas aussi aller jusqu'au bout d'un processus parce que tu es un général tu es allé en, dans des guerres tu as perdu des batailles mais tu n'as pas perdu la guerre du tout aujourd'hui on a vu ah euh, sëñ Ahmadou Bamba bañ ko yóbboo Gabon il était emprisonné hmm. deful grève de la faim hmm. gis nañ fi Mamoudou Dia qui n'a qu'est-ce n'a pas subi gis nañ fi euh, Khalifa Sall gis nañ fi Karim Wade gis nañ fi ñeneen ak ñeneen hmm. te tey moom opportunité bi mu am xale yi topp ko ak dayo bi mu am Mm-hmm. tu te dis moi j'ai perdu une bataille mais j'ai pas perdu la guerre ça mm-hmm. c'est pas une forme pour moi de continuer mm-hmm. le combat te ñëpp ñaan lañ la ko ah, te bu bàyyee grève de faim bi lu tax tamit mu wane dafa faible dafa faible c'est quoi c'est aujourd'hui tu regroupes ta euh, ta et tu commences à porter le combat pour li ci des parce que tu es encore jeune y rien d'exceptionnel on est tous de la même génération soxla nañ ko daal te saa moom bu deful